ki nuyu tey jii dañu ñëw fii ci euh, plage yu montagne cinq a et amal fi benn activité sport beach cœur plage de sensibilisation informer partage avec population yi fi dëkk ci njëriñu toppatoo tebes plage buñ ko toppatewee gis nañ ne atu la opportunité la ndax buñu xolé tay ñaata jeune ñofi nek ndax kon mbégte la mais buñ ko toppatewee nak bu mu gëna rafet def ay banc public def fi ay wifi def fi ay euh, gën ko yaatal mu gëna a jekk je pense que ni dafay gën a baax te tamit day gëna tamit may population yi envie pour ñuy gën ci plage moo la tey ñu ñëw fi euh, dajé fi ak waa Hann Montagne 5 ak les jeunes dames les jeunes filles les parents les jeunes ñëpp ñu daje fii aujourd'hui pour joxe ay message d'information mais de sensibilisation. autorités yi tamit ñu gën a góorgóorlu xam ne tey ñu dëkkee nii seen bon kër nekkee nii mbégte la ci ñoom ak ñi fi dëkkeewul autorités yi gën a góorgóorlu mooy li ñu fi jotagum def ñoom ñu xam ne loolu njëriñ la ñoom ñoom ñu xool lan lañ ciy dolli pour jàppale leen ñoom si bëgg-bëgg bi nga xam ni am nañ ko loolu daal moo ñu fi indi waa tamit ñu waxaale xale yi tamit eh, drogue bi ñuy jël bëri baaxul. drogue bi day tax ñu violent drogue bi baaxul bëggoon nañ tamit suñuy jeunes mais tamit drogue bi pour ñu mën ko wàññi mooy il faut ñu dindi abri yi mbaar yi gaal yu yàqu yi yëpp bu ñu ko dindee mu yaatu éclairage public am fii boobaa je pense que ni xale yi dinañ am kers pour mën def yenn yi mais nag bu fekkee dafa lëndëm guddi gi doo ñeme yoon sa doom donc eh, xale yi tamit fu nekk la ñuy làq def loolu nag noonu yu bëri daf am waaye tamit beneen business moom mooy xale yii nii yëpp tey seen xel nekku ci ñu dem immigration clandestine ndax tey jii tey boo leen occupé rek wax ak ñoom rek ñu delloo seen xel waaye boo leen bàyyee waxaloo ak ñoom dafa mel ni da ngeen bàyyi ak seen bopp te boo leen bàyyee ak seen bopp dafa dafa mel ni jàppale tooloo leen kon ñu bañ bàyyi xale yi ak seen bopp di leen jege jàppale leen fekk leen seen bëgg-bëgg dina tax ñu wàññi ci ñoom yu bëri yu ñu doon def donc xam naa ne damay joxe kàddu gi. donc nous, ñu nous, en tant que nous, nous nous, nous, ñu wax seen xalaat ci lu ñu gis ak tevel ak bëgg-bëgg. wa tay dañ fi pour sensibiliser jeunes jeunes surtout pour affaire comme ni sama grand frère wax rek affaire yamba bi fi am da fi bari mom ñu wax ko ak ñu wax ko wax en fi. té lool day tax agressivité day bari waaw te tamit euh, ñu gën a veiller pour éclairage public bi yëpp leer xam nga bu lëndëmee lëndëm moom fu mu am rek moom insécurité day am et tout waaw loolu la daal. alors mbégte mi la ñu war a la ñu laaj lan moo ko parce que sànq bi la gis ni yaa ngi jubilé. mbégte mi waa lii dafa rafet géej gi set ah ñu defar ba mu rafet plage bi rafet ñu arrêté këpp ndox yi et tout waaw gis nga lii xam nga lii dara daax ko macha allah waaw kontaan nañ macha allah daal neex na.

samay population fuñu pour la jeunesse à leur côté plage plage bi partie pour neex parce que daf may rappeler l'histoire. bu depuis temps xalé ba fi plage bu am solo une plage très propre en tant que en tant que maire damay suis bu de mais ñëw au bord de la plage pour montrer que violence bi aussi dañ ko wara a parce que sport mag ak xale ñëpp dañu wara ñew seetaan ci lool dal vraiment moy motivé sama présence tay quoi. alors ñew nañu fii seetlu porche bi nga am dañ ni mu sété ni ko ampleur ana lan conseil ngay am yeneen carte euh, yi nga xamante ni ñoo nekk au wa sank sànq maa koy wax conseil bi ma am mooy environnement c'est un problème de comportement loolu lu ñuy éco-citoyenneté donc je pense bien ku nek bëgg vivre dans un endroit décent plage bi boo xoolee ni mu mel tey nga xam ni plage bu set la bu rafet la pourquoi mu mel noonu parce que dañu ko toppatoo entretenir ko amul occupation anarchique xale yi ñëw nettoyer ko ba mu set vraiment je tiens à leur rendre hommage mais invité vraiment toute la population riveraine vraiment à adopter la même comportement. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu initiative bi. bon damay wax en tant que joueur waaw en tant que joueur rafetlu ñu li ñuy gis ni vraiment parce que de un en premièrement ñu ngi am suñu stade xam nga war ci mën a jëriñoo war ci jëfandikoo xam nga ñu ñu koy privé à cause de lane violence xam nga chaque à fois rek chaque année nawetaani bu taxawee bu amee rupture rek bon violence la chaque année les même choses xam nga les mêmes choses se répètent à chaque nga loolu nag war nañ ci mun a xoolaat suñu bopp daal. li ñuy kii bu dee côté joueur non amul problème mais bon violence bi képp xam nañ ni côté supporter la donc supporter yi ñoo war a xoolaat seen bopp xam nga gars yi sensibiliser waat xam nga sensibiliser waat nit ñi woote caravane boo xam ne bu dee dañuy def sax jaar koñ ba koñ xam nga sensibiliser nit ñi ñu génn parce que du yoon ñu am suñu stade moom ko vraiment mu bokk ci yi gën a rafet ci Dakar vraiment ñu war ko ñu moom ko war ko jëfandikoo. ñuy génn di football ci terrain jàmbur di waaliyaani te fekk am na suñu alal donc lu ñu moom la may lance appel ci bon mag dëkk bi kilifa koñ ñu def sensibilisation boobu jéem kii daal. Mm-hmm. merci beaucoup mën nañu xam ban quartier nga fi teewal. bon Tableau Ferraille. Euh, merci beaucoup El Hadj. merci. man maa ngi tudd Ibrahima Dieye. d' accord ñu seetlu violence bu bari ci wàllu nawetaan donc euh, ci walum football ñu bëggoon xam ana lan moy say xalaat ñu xam te ne mën nañ ko tek pour lolu jigeen non violence mom moom lu ma si xalaat pour ñu mën ko def mom moy comme commencement commencement nawetaan yi ñu ngi doon jël ay mesure comme équipe bi fexé ba équipe bi su match bi jéxé ben équipe bu mu bokk yoon bu mu jaar ak yoy non sélu na ko ci match yi ñu ko def yépp violence amu ci mais bi ma seetloo contre match mbaxal mbaxal sanc bi suma juumul jour wo mom police dañu dañoo nelaw ci côté bobu parce que suñu jiitaloon gaay ñom ñep suñu leen jiitaloon ba seen koñ parce que xamna ni ñom ñaan ñep ay ay équipe ya nga xamni derby la avant match bi ñom ñaan ñu ngi teunkonté ak yoy non lo a xamni match bi bu jéxé comme violence dina fa am quoi ñom waroon nañ fexé non lool non ba ba mu baña am man lool la ci gis quoi waaw. d'accord euh, man nañ xam ban équipe nga bokk. man maa ngi dëkk sant yàlla. jërëjëf ñu lay sant.